Busayri mu ngi tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne mu muxayyan kanam ka shamsi bu mel ni jant mu di yun daaji leeral mhm. waa kanam googu mu di yun naat la ci kanam ga mu di yun baaji leeral min ko mu ngi ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa kanam gi yow yonent bi mhm. dafa mel ni jant nii jant di leeralee noonu lay kanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leerale usfirat wuññi nañ maanaam feeñoon nañ mm-hmm. anu ci kanam googu laylatun gudd xarra u gaa ji weex jaa ji leer nañ kanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. waaw guddi gu lum lëndëm lëndëm kanam gi mën na koo leeral bu sëyri dafa niroog yonent bi ak jant mm-hmm. ndax jant mooy li gën a leer ci liñ kam waaye bu dul loolu mm-hmm. yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi kay moo gën a leer jant xëy mm-hmm. na ñëw gim ñëw ci insaaniyatu mm-hmm. moo tax lu bëri ci leeram yàlla nëbbuñu ko buñ gisoon leeru yonent bi suñ bëri gumba ndax ko ni nga xamee ne jant bii rek mënuñ koo xool leeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañ ñu koy xool waaye nag <coughs> yàlla feeñal na ko ci melo doomu aadama benn bis ndey Aysatu puso mos na koo réer dana ko wax ci sarxa mu di ko seet gisut ko yonent bi ne tëll rek kanam nga leeral néeg ba waaw ba mu gis puso ba sallallahu alayhi wa sallam wala nga ne dafa bëgg a wax ne kanamu yonent leer ba mel ni jant ci la yàlla génnee guddi gu leer googu mooy guddi gu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddu maanaaw maanaa wax ji mooy anal muhayya naka kanam woo moom alwajum moo di kanam muhayya mooy wajhu ke shams dafa mel ni jant shabahu niru na ko bi shamsi jant fii xaayati diyaayi ci doyab leeram wa fii xaayati kamaali ak ci doyab matam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi la niru la jant min baabi tasbihi mu ngi bokk ci buntam niru la leen ala lu gën a kawe bil adnaa ci lu gën a suufee boo ne yonent bi mu ngi mel ni jant yaa niru leen lu kawe lu suufee ndax jant kay leeram lu suufi la ci kanam yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana wax lu tax mu wax loolu moom saayixun aji dagal la indal arab yi ci arab yi arab yi dañuy niróole lu kawe ci lu suufee leannoo ndax moom sallallahu alayhi wa sallam fi diyaa yi ci leeram diyaaw mooy leer gu ànd ak tàngoor kon mhm. nuur yi leeram ad moo gën a leer mhm. wa anwaru moo gën a leerit wa akbaru moo gën a màgg mi ne ci jant bi kasi nañ ci lu bari leer ak yonent bi moo gën a màgg leer ak jant waxuma nag koo xam ne nii Muhammad ibn Abdullahi rek la xam laa ko <coughs> kooku loolu mën na koo jaaxal waaye ko xam Muhammadu Rasulullahi da nga xam ne leeram moo gën a leer jant fay na diyaa shamsi naka leer ak jant fii xaayati saati ci doyog yaatoom isa udifat buñ ko laafee ilaa nuur yi ci leer ak yonent bi wa diyaa yaag leer jalaalam sallallahu alayhi كانت دفينك بسقتين من لها بتفليل في البحر تيجي المحيط باجي بيك نعم. بحر المحيط جيخا نمور فيب بوري ما يتفليل فا نعم. نفا تفليل بيجي مل نعم. نون لير ينتبي ملك لير ينتبي على محمد صلى الله عليه وسلم وخ مسخ ينتبي وهاي الله ما ينرى يولي يخمني سين لير نون لبي لير ينتبي موتا من يقول من يوى ابن الفارد في تاية تاية حكاية نتلع نفسي تبوهم دفنا ابن الفارد مي مودة من بيجي نادنا يلا ونكو كرم تشال boko ko yàlla wanee këram ci aljana muy jooy mu ne li ma liggéeyal yàlla yëpp bu fekkee li ma yàlla fayee man perte ñu ne ko loo bëgg mu may ma rek ma xool jëmm ji benn xoolin waaw sikk sem tuuti rek ñu gis ko ma ngay muñ waaw noonu la génne àddina ñu xam ne am na càkkuteefam wax na ci taaye hikaayatan di nettali an nafsi si boom ne wa min mashrii lbahri lmuhiti ka nuqtatin wa min matlai nuuri lbasiti kalamaatin mu ne sama leer gi كنقطة بوك من مشرق البحرين بوك تكلي جيج جي أجي تالو المحيط باجي بيك كنقطة جيج جي فهم لنا تقرأ شيء سمالير جوجو وااا أكنو آه، مقام جوجو نيم تالو جيج جي تالو جوجو غخنو مي بحر المحيط كم تقرأ لشيء مل ومن مطلع النوري شيء فين كغلارجا البسيط جي لارك جيرجي كلام عطينا فهم لنا بين جنة كم بوك تكلي leer gi nga xam ni moo fenk ci jéeri ji mm. waa albasitu mooy suuf si rek de mm. leer suuf si mm. ni mu tasaaroo ni mu leeree boo ko tëkkaleeg sama leer gi dafa mel ni benn géndeeku xasali huwa moom fi maxal mu ngi ci maqaamam maqaamam lay wax maqaamam la leeram boo ko tëkkaleeg leeru suuf si mu mel ni benn géndeeku maqaam bi ni mu tàllaloo boo ko tëkkaleeg géeju muxit tàllaloo mu mel ni géej gi mel ni benn toq rek <coughs> كون فكيف بي نكلا موم يونت بي صلى الله عليه وسلم الذي من قمنا لا قياس دي القياس عليه موم نكا لا يوحش يونت بي قمنا ممكن دوكو تكلي كن فإن الجنة نكا الجنة مراتب نورها مرتبة إلى رم أي المرتبة المرتبة السفلى بغن السفلى من أجل الجنة لو أخرجت بغن لو أخرجت بغن نون هوراو بن نور عيني آه، آه، أصبعها بارامم xataa min asamaay ba ci asamaan ci laat faat koon mu fekkee nuura shamsi leer ak jant bala ahli dunia si ñu àddina aljana ji gën suufe mooy ji nga xam ni mooy njël benn aljana <clears throat> su fekkoon ne benn xuuru ay ni dafa génne baaraamam rek ba ci asamaan si leeru jant bi fay ndax leeru xuuru boobu moo gën a leer fuuf leeru jant bi waxuma jëmmam de baaraamam rek bu ko génnoon ci jant bi leeru jant bi fay ci waa وهكذا ني لما النسبة الثانية أسكن نيانال إلى الجنة الجنة التي بين خن أسفل وغن سوف منها تموم ده واو as aljana ak ñaareel ji boo ko boo ko boo ko tëkkaleeg aljana ji gën a suufee benn xóoru ay ne ci aljana am ñaareel boobu gën noonu baaraamam ci aljana ju njëkk ji rek leela aljana ju ji fay waxaakasa nii la fa dan topp la gën a kawe ilaa maa ba nga jëm ci na nga xam ne laa ne xayata di rek doytul waaye loxo di ko ñeel aljana ji gën a kawe mu en lii na en benn xuur ayni bu génnoon baaraamam rek firdaw si fay firdaw si moo de aljana juróom-ñaareel kon maanaam aljana ju nekk noonu la gën a leeree morom ka waxuma jëmmi aljana ja de waaye benn xuur ayni ci aljana jooju rek bu woon baaraamam rek aljana ji ko gën a suufee ñooñu aljana eh, eh, jooju seen leer dana fay te ñoo ñëpp ci yonentu lañ jëlee leer kon kay la yonentu yàlla Muhammad moo gën a leer waaw jant foofu illiina googu nag fa la Cheikh Tijaani dëkk ak taalibeem ci damaanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ci boole wa na asaraka aras law ba bu feeñoon nuuru leeram la kaanat kon mu nekk a jant bi maa ànd ak moom waaw kal xindiili mel ni ab sondeel fi wasati shamsi ci digg jant bi aras bu leeram feeñoon nga tëkkali kook leeru jant bi dafay mel ni ab sondeel boo teg ci digg jant bi xam nga ne sondeel boobu leer waaye noonu mel ak وفي وسط الظاهرة دفع ملن سون دل سيدي جنجلور جنجلور مويدي قبتك وقد روي أن يتلن في الخبر في قباري أنه نمو من النبي صلى الله عليه وسلم منذ خلق الله دي في بيال بن على سعرس كل يوم بسبونا كي يكسى هذا لنكو هردو ألف حلة تكاي جنة تكاي من نور انتلار <coughs> دينغا واو عرس نتلن نبقى يالي بن بلغي بسبونا كي هردو جنة تكاي تلار وو تمام لا يعد ولا يعد جيجي في انواع الحجب شي قيتو آه، كراي ولا بوك لا يعد دنج كونت موي في انواع الحجب شي قيتو كراي التي يخني فوقو مو نيك كوم كراي نيك سي عرس بوك تكري عرس عرس دو دارا وكل هذه الانواع تمبولم يل لير تستمد دفاي تب من نوري شي لير صلى الله عليه وسلم تلير يب ci yonent bi lañ jëlee leer kon kay bu la waxee ne la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo gën leer jant bi nga mën koo gëm woo moom yonent bi almufiidu mooy lu bubbal alaa jamia ci mboolem yi yëpp bi anwaari ci ay leer wa iza udifat buñ ko laafee nag ila nuurihi la ci leeram sallallahu alayhi wasallam leer gi nga xam ne yonentoo ko jox leer boo ko tëkkalee leeru yonent bi kaanat leer googu dafay nekk kalamaatin comme benn géndeeku falaa nisba déet askan baynoo diggante moo benn sams ak diggante jant fi di yaay ci leer wa nuur yi ci leer ak jalaal wa nuur ak leer ak jamaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeram kay xam nga ne du leer ak jant bi du dara ci kanamam لكن التشبيه الأعلى وعنير للكما بالأدنى تلقنا صوفي ساي غنو دقل عند العربي في قال وانا سبحانه وتعالى وتعالى كما الله يلا نور السماوات موي لير جي أسمان جروم نيار ولا دك صوفي جروم نيار لولو فيري كو يمبوت مثل نوري مثال ليرم كمشكاتين كم أب واو لامبو بوخن فيها نكنسي واو مصباح واو اكك ميس ndenga nga wala ka misbaatin ku ma bitel fi a nekk na si misbaam ak lampum lim bëgg wax mo yàlla niru niru na boppam ak leer asman waye xam nga ne yàlla mo gëna kawe leer asman suuf fayna nuruhu nak leeram subhanahu wa taala niru na leer leeram kon comme leeru lampu bobu mom yàlla masul nuri kamishkatin comme leeru bitel bo xamé dafa am lampu bu nek ci bir waaw wala leer yeneen leeru yàlla la xam ngeen moo gën a kawe ak lamp feneen nuuru naka leeram subhaanahu wa ta'ala sallam wa ta'ala kawe na laa xayata di tag doyaloo di ko ñeel wa shabbahu mu niru ko bil miskaati waaw ci lamp weer maa ànd na miskaat ànd ak ne miskaat boobu fii xayati donc fii mu ngi ci doyab lottu waaye nag yàlla am na leneen lu mu ci bëgg a jàngale fa li moo tax naa ñu wax ne inna tasbihu naka niru la yonent bi bi shams si jant bi min baabi dar bil masali mi bokk buntu joxe léeb bil adnaa ci lu gën a suufe dégg nga comme ni ko yàlla defee rek ci alquran joxe misaal ci lu gën a suufe ndax amul lu toll ni moom kon ci lu gën a suufe la mën jox nit ñi misaal ci boppam waaye dan ba tey nazaru nazaru am na beneen setantal aaxaru beneen mm-hmm. موي لما كان بام نيك ياسم دو جنت بي موم غايه ما ادركت موي دوب لاغا خا نجر نكو القوه البصريه كات نو منديف من انوار تيلاري وغيرها يويو دنگا دنگا واو لا علم دير قم قم لا هادي كو نيال بي تي موم كان نيك نا تسبيح صلى الله عليه وسلم بغايه ما ادركت دوب لا خا نجر نكو البصريه من انوار تيلار وي موم اسمت ما جنت ba nga xamee ne jant bi mboolem lu bët kàtt nag bët mën a gis ci leer ak lu dul leer jant baa ci gën a kawe mboolem leer yi nga xam ne xam nañ ko xamuñ ko laal gis nañ ne leer yi yëg yëpp ne leer la jant baa ci gën a kawe moo tax mu niru la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci leer gi nga xam ne moo gën a kawe ci leer yi te moo di jant ne waaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni jant déedéet moo gën a foor jant waqad madaha tàgg na sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. moom bu seeru fii xasidati ci xasidaam uh, wala boog waqad madaha tàgg na sallallahu alayhi wa sallam yonent bi tàgg na ko mm-hmm. ku ko tàgg ci xasidaam Kaab bun Zuhayr xaytu shabaho bu mu ko nirolee sallallahu alayhi wa sallam bil asadi ci gaynde fi haybati ci wegal wa shiyaat ak jàmbaar woowu te moom maalumu ñu xam la xasida boobu ñëw xam nañ xam nañ ko mooy kaaw bu muy jégal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. daf koo tagg nirule ko gaynde <clears throat> ci jàmbaar ak wegeel mm-hmm. waaye xam nga ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo gën a jàmbaar gaynde fuuf moo ko gën a wegu mm-hmm. nit daan na ko gis rek di lox mu di ko xoyofal ne ko góor laa goo xam ni rek ak jigéen ju doon lekk seen ci jàpp fii ci màkk moomu jur pour war na ko nit laa comme ñëpp rek waaw ndax wegeel gi mu am sallallahu alayhi xëy si yaqulu kambu mu naan xataa wadaat dem naa ba tege mi nii sama ndeyjoor fii ka fi naxamaati ci tënk borom bugal yi xiil woo waxam ja al xiilu may wax ñu war a jàpp ñëw naa ba teg sama loxo ci tënk ki nga xam ne nii bugal yëpp ci yenn loxoom la ko yàlla def te lu mu wax rek mooy wax ja loolu lañ war a topp kon kay laaw naasion du ma xëccoon te wante moom du ma xëccoo ak moom mu ne kon kay yonent boobu du ma xëccoo mu mbugal la yàlla moom ci boppam loolu ñu lépp ñëppoon nañ koo seetlu mbugalul kenn ngir boppam rek rek rek waaye joxut kenn xewal ngir boppam rek ndax foofu keneen yeggut fa waaye ci màtt ba ba mbindeef xamee ci la commencé mbugal ci rek commencé waaw xewale foofu la mbugal ak xewal xam sallallahu alayhi wa ku yàlla mbugal rek da ngaa weddi yonent bi wala nga ba jàngaleem rek tax mu mbugal la waaye soo wedduwul yonent bi mm-hmm. tegg woo jàngaleem yàlla du la mbugal mm-hmm. waaye ku yàlla xewal rek mm-hmm. da nga topp yonent bi gëm ko waaw wala nga topp njàngaleem moo tax ci martaba boobu la mbugal ak la ko yàlla di joxe waaye moom yàlla ca yàlla am ja moom mbugalul kenn kenn loolu eggut fa ku yeboo weg mbindeef yi ñu xal ku ñëpp mbindeef yaa waaye ñu tedd ñëpp mbindeef yaa leen teddal ñu bëri nag seetluñ loolu Hmm, léeg-léeg nga dégg ñu ne diw diw rek la mm-hmm. du tus mm-hmm. kon nag jaamu leen yàlla bu leen jaamu diw mm-hmm. yàlla rek la war a jaamu waaye war na ñëw rek képp koo xam ne nii fab yàlla la soppeeku yàlla la yàlla takk na xare ngir noonu benn waliyu mu takk ci xare <coughs> loo ci déggee ku ko soppal benn mu takk la xarit rek daa wax de. xarit xarit ak xare nag du benn xare moom musiba ci juddoo waaye xarit moom xewal la ci juddoo ci mbindeef yi ñuy xeeb ci la yàlla di cawee ci la yàlla di joxe ku yeboo wek ñëpp rek ni nga xamee ne boo wegee yonentu yëpp di benn yonentu yàqu nga mm-hmm. naka noonu ku fonk wëlli yëpp mm-hmm. weddi benn wëlli yi rek am nga yàlla problème xamoo nag ñen ñooy wëli yàlla yi mm-hmm. xamoo ñu yàlla tànn kon fonkal ñëpp rek mm-hmm. mën a mucc xormaal leen mm-hmm. borom xel sax du def lu lu loolu la zaaka yonantu boobu ah yebu moo gën a yegoen yi fa man is yu mu ni jamono bu may muy wax ak man ndé nga wax la ñu ne may nekk naka yow kaabu mam suubun ku ñu askane nga lu ñaaw lii wa masulun te ku ñu laaj nga lu tax nga wax lii yonantu moo gën a wegu maanaam moo gën a raglu min xaadir ci gaynde min li yuusil usdi si jàmbaari gaynde yi maskunu dëkkuwaayam fi badni asara mooy xuuru asara xiilun gott la goo xam ne doona woo xees na ko xiilun beneen gol gott wala gol mooy barab bu sëq bu ami garab gaynde foofu la daan dëkk nee na yonent bi keroog ba muy wax ak man moom laa gën a ragal ci gaynde gaynde goo xam ni gaynde gu jàmbaar la dëkk ci xuuru asara nga xam ne nii xuur boobu boobu ngay xam mooy lan mooy garab yu sëq la te waaye balaa nga fay yegg danga nga romb barab bu mel noonu xam nga ne kon foofu dana lëndëm lool diggante <clears throat> ñaari barab yooyu rek dafay raglu waxuma laa nga dem ci barab ba gën a sori nag gën a lëndëm ne ne yonentu moom laa gën a ragal ci jàkkaarloo gaynde googu lu tax ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu la rayee sawara nga jëm waaye gaynde moom bu la rayee dara nga rek yàlla mën na laa dugal aljana yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu yàlla mere na waaye gaynde moom bu la meree tous mën naa am sax keroog la yàlla gën a bëgg moo tax ragal yonent bi borom xel moom la war gën a def ci ragal gaynde sallallahu alayhi wa sallam mooy coobare yàlla ji nga xam ne ci la yàlla defee lu bëri su ma tamaadaa mu continué fi wasfi asali ci meral gaynde gi moom waaw kambu ne ma leen gaynde rek de mhm. xam nga gaynde rek jar naa ragal waaye gaynde gu ñàng laa leen wax mhm. ne leen moom moom laa gën a ñeme ci yonent bi wala isal du dañ mhm. bi waa di ci xuram xaatiqatin borom confiance maanaam ku wóolu boxam du mos di dañ mukk mu taraxal basi di kuñ sànni waaw ngandaayam wa dirsaani ak yéréem maa ko wóolun di kuñ lekk nit ko am confiance wóolu boxam saa jàkkaarloo gaynde googu dana sànni suuf sim ñu simmi yéreem lekk ko mm-hmm. gaynde googu nag dem jàkkaarloog moom moo gënal fuuf jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na dëgg tasalu dana yanu minhu ngir gaynde googu si baaxul jaw yi ndog jaw yi mm-hmm. maanaam picc yi naaw si jaw ji xami sell dañuy yanu daa misatan di way ngëbu ñu teg ñu gisee gaynde gi rek dañ naan teg bu sab duñ def dara mm-hmm. ndax ragal gaynde gi lekk leen te ñoom kan ñu ngi ca kaw wala tamasha du dox mukk bi waa di ci xur ma la jilu tànk yi gaynde gaynde goo xam ne tànk ñi mutu dox ci xur wam nekk gaynde googu maanaam jàkkaarloog moom moom a gënal foofu jàkkaarloog yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma tamaada mu continué nag fi wasfi asari ci melal gaynde allazi gi nga xam ne kaana nekk na indoo moom sallallahu alayhi wa sallam boobu ay yobu di gën a wegu minu ci gaynde googu mu continué nag ci xasida ba di melal ne yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moom la gën a ragal ci gaynde googu illaa an qaala ba mu wax ne mhm. inna rasula naka yonent bi mhm. la sayfun jaasi joo xam ne yustadaawu dinañ leerlu bii ci moom mhm. muhanadun jaas ju ñu hindaal la ñu rocc la min suyufillaahi mu bokk si jaas yi nga xam ne yàllaa ko moom bu seeri ne yonent bi jaasi la ñuy leerlu soo bëggee baax daal mu leer la la nga xam yoonu jub waaye daal <clears throat> bu yàlla na leen nattu jaasi jooju rek moom caw kon jaas ji yàlla ca waatee di leeral leen nit ñi mooy yonent bi jaase ju hin daal mooy jaase ju baax bu mel ni hind la jugee waaye nag du jaase sàmba du jaase demba jaase yàlla la du jaas ju nekk ci mbatit jaase ñu rocc la pare na nag liggéey bi duñ ko mos a dugalaat ci mbat ma ba bis penc jaase yonentu yaa ngi liggéey sallallahu alayhi wa sallam gannaaw yonent bi muy liggéey ci ay wàlliyoom ku bëgg a baax rek jaas ji leer la ku bëgg a bon rek jaas ji dagg sa dox gi benn yoon yàlla incha allah musal xul naa wax nañ ne inna woon naka moom yonent bi sa alayhi wa sallam sabahu inna woon naka kaabu sabahu niru na niru na yonent bi bilaas di ci génnee maa kaw ni ànd ak nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa nisbata di rek askan baynoo di nekk diggante mu bañ asad rek diggante gaynde laa fi sijaati du ci jàmbaar wala fi laxibati du ci wegel mm-hmm. yonentu moo gën a jàmbaar gayne moo gën a wek mm-hmm. wegel mm-hmm. ndax raglu gi gaynde am yonentu ko jox waaye jàmbaar gi gaynde am si yonentu la ko jëlee illaa ida qul naa lu mooy ñu wax rek a tasbihu niru le lil ala gën a kawe bir adnaa ci ku gën a suufe saayi xun lu dagal la hen doom fa arab <laughs> niru le lu gën a kawe ci lu gën a suufe dagal na ci arab yi noonu lañ def fii yonentu kenn mënu ko nirule ku toll ni moom moo tax toujours rek lu ko gën a suufee nga koy niru rek sallallahu alayhi wa sallam xawloo waxam min ka tukkee ci yow mu diwun bi aji leeral yuridu dafa namu annoo ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na wajoo karamam fi xaayati diyaa yi ci doyob leer yonentu karamam dafa leeroon leer gu jéggi doyo hatta hakkat ba mu ne tey Aïchatu Aïcha radiyallahu anha yal na ko yàlla gërëm annaa ne moom Aïcha raat gis na al ibrata pusa fi layli ci guddi gi hina saqatal jamono ba mu rotee mi diyaa ci loxoom bi nuuri wajji ci leeru kanamam yonent bi la alayhi wa sallam ne Aysatu pusa réer na ko ci néegam mu lëndam mënu koo gis waaye yonentu dafa dugg rek kanam nga leeral pusa ba yaani lu mas na mu nuuraaniyatu nuura leeram moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xawloo waxam jum ne usfirat wuñu ne ñaanu ci moom laylatun guddi xarraa u du aji leer maanaaw maanaaw bu mooy am na isfaar naka wuññi googu <coughs> woo moom siddatu yaayu mooy doy mooy tas ak leer gi jugee alwaaqi gi aji tabbi mm-hmm. baana zalaami gannaaw lëndëm mm-hmm. isfaar mooy lan mm-hmm. mooy leer gu leer naññ ñëw gannaaw lëndëm loolee wuññi moom lañ tuddee ba set sax يقول لي سبحانه وتعالى مثلا وتعالى كوينا واللي ما ما ينجي قد كيزا عبر نم ددنا والصبح ما ينجي سو بكيزا اصفر نم ليرلنا والاسفار اسفار وني قلنا واحنا هو ممشي دودي اي موي لير غوتات نعم. بعد الظلام غنا لن نم جين واو يونس بي صلى الله عليه وسلم waaw mooy leer gi nga xam ne ni lu lëndëm rek moo koy leeral waaw xaala wax na waju kana moom sallallahu alayhi wa sallam kaanoo dafa mel ni moo samsu jant la fi diyaay ci leeram sumaar dafa topp mu tafal ala yi ci moom maanaam aqaram beneen maanaa xaala mu ne sufirat wuññi na ñaanu ci kanam googu leeratun guddi xarra bi aji leer li anna shee an war ndax mbir mu leer zuhuru feer gim feeñ gim feeñ fii xaayati zalaami su doyeeg lëndëm woo te moom allayli mooy guddi ak mu akbaru mooy gën a màgg jamaalan ci taar min ci feeñ gim feeñ fi naari ci bëccëg lu leer bu feeñee guddi ci lay gën a rafet ci bu feeñee bëccëg ndax bëccëg dafa leer ni moom mbir safaanam moo koy wane moo tax yàlla defar lu mel ni safaanam lisa looloo tax xaala woon usfira bu ñu ne am ci moom laylatun guddi xaraaw waa ji weex gaa ngi mas na mu bay daaw bi aji weex bi si nuuri si tatak leer wakkaane nekkoon alleylatu guddi gi fi asliha ci cosaanam fi xaayati zalami ci doyeeg lëndëm falama tala ba mu fenkee alwaju ak këram këram gu tedd ga fiyaa ci moom mooy këram yonent bi bi dayaayi ci leeram waa guddi gi dafa lëndëmoon waaye ba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam feeñeeg leeram kaana nekk na xarraaw di aji weex bi daalika waji ci boobule këram oo sura ñu wuññi an daalika waji ci boobule këram karam këram gu tedd bi ñu wuññi guddi googu hatta saarat ba mu mujj bay daa di aji weex bi xuwati nuuri ngir alladi gi nga xam ne barasa feeñ ne feyaa ci moom su ma xaal toob mu war a de ban guddi la kanam yonent bi leeral mu ne laylatul mawlidi mooy gudd ak juddu alladi gi nga xam ne kaana nekk na li diine ñeel diine sururu ak mbégte bi yow ci bisam was di aaw naka kontante guddi gi yonent bi juddu guddi googu mooy guddi leer guddi googu moo di guddi mbégte ak kontante sallallahu alayhi wa sallam ci ngi leeralee guddi googu keroog ba yonent bi juddoo guddi yëpp yëpp leer nañ rek laa wax de bi di wàcc ba ba mel boo yëkkatee sa loxo xaw koo laal mm-hmm. mu foo toll rek waaw di leer yi waa Makka sax ñuy gis pare nekk Sham mm-hmm. ndax leer gim leer kon kanamu yonent googu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. yàlla na leer la goo xam ne waaw dañ na àddina yëpp rek wax de xawloo waxam la laylatul mawlidi guddig juddu yoxtamalu danañ yaxtami dana jëmtalu am noo ne moom min baabi at fu bayaan muy bokk si buntam at fu bayaan at fu bayaan mooy lay leeral la ko jiit rek hmm. loolu ñooñu nax woo ko xam waa dafa waxoon guddi gu leer hmm. ba pare muy leeral nag ban guddi la mooy leelatul mawlidi mooy guddug juddi googu hmm. mooy guddi gu leer gi yonent bi wuññi woo moom xawloo mooy wax mooy waxam jum ne usturat wuññi nañ anu ci kanam googu leelatul guddi raaw bi aji weex atafa tafa naa laa ci moom bi xawli ci waxam nga ne ko guddi googu mooy ban mooy leelatul mawlidi mooy guddug juddi ويحتمل دنا جمتلو أنها ليلة المولد دي جملة جملة buñ sos waa ولولي ñooñ naxoo ko xam maanaam dafa sos waxu boppam rek ne guddi waaw juddu gi yonent bi juddu guddi googu waaw guddi googu guddi mbégte la ak de ثم قال مو لك مولد جدك جدو كانوا دافا مل مو يقول لي واخ لي يكون نيك نعم. اهتمامك سيتي وين مو كاك سخم خم تي ليله المولد جدك يونت في جدو التي غي خم نولي دي جور نكو فيا آية تي محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الليله تي بوبي جدو جدي كان لا لدين الاسلام نيل دين الاسلام بتلك الليله تي بوبي جدي واو ak mbégte wa diyaaw naka kontaan wa zahu kontaan nag woo moom siddatul inbisaati mooy tatak tàllalu fi sururi ci mbégte rek laa wax de waaw fay na surura naka mbégte woo xaqiqa na ci dëgg-dëgg woo moom nuurun leer la yestahu dana jolli di fenkaalal xalbi ci xol waaw yujiru yujiru dana amalil xalbi ñeel xol a surura mbégte wal fara ak bég wala ziyaar ak kontante woo moom kontante nag waaw zuhuru dalika mooy feeñ ak loolu alal jawaar yi ci cër yi waaw kontante mooy mbégte gi feeñ ci cër yi bi satrin nga commencé kebbatu di waxantu aw tasfiqin wala tàccu aw shiddati harakatin wala yëngatu gu tat loolu mooy isdihaaw rek isdihaaw rek laa wax de isdihaaw kon bu seeru ne na nga jéem a yittewoo guddi gi juddu guddi googu nga xam ne ba ci yonent bi juddoo waaw diine am na si mbégte ak kontaan rek laa wax wa tawaalaat تفطرون بشرى الهواتف بكتي قاتيا أن الإمبير تمير قد ولد جرنا للمصطفى مصطفى وحقين على هنا وندكو كرك بين تجدو من قاتو di bégle ne yonent bi judd na kon xëy na nag ñu ndokkeel ko sallallahu alayhi wa sallam jinne yi di xaacu di bégle juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xataa xërëm yi ñu ngay damm su leen laajee ñu ngay wax ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo xam ngeen ne kooku du simple ñëpp xam nañ ko ba ci mbëtt yi ñu ñu ñi rek ci jinne ñoo ko xamut ak nit ñi maanaam maanaam ba andoona li am ba am tawaala toftaloona albashaayiru mbégte yi naas ci nit ñi fii tilka leele ci boobu boobule guddi basharat bégal na bi ci juddu yonent bi keroog guddi googu guddi gaa ngi bégal na ñi ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu na njaaxal yi penku ña ngay dem xarfu ngir bégal waa xarfu ya nekkee xarfu ña ngay dem penku ngir bégal waa penku ñëpp a bégoon wanu xirat tooxal nañ min daalika ci bégle yooyu kasiirun lu bëri nettal nañ ci lu bëree bëri loo xam ne xajul ci waxtu yi rek laa wax ملك الفرس نعم. ملك الفرس نترك بور الفرس مي فارس نعم. معلومة من قملة مم بور فارس نعم. كرك بين تعالى محمد صلى الله عليه وسلم جدو نعم. خيو خيو بوري خيو مم لأن إيوان هو نخت بخمبا نعم. إن هذا ما بنا من يش مم أربعة عشر رسول فتن فكي واو تتجنيت fala maas baabam mm-hmm. waraa mu gis mu gis tëj tëj yooyu takamara jàq na fi xal bi ci xolam mm-hmm. ndax suuf ci topp danañ wax tabax boobu nu mu woon mm-hmm. ak nu melon nga xam ne caaxaan du ko toj waaye dafa xeew rek gis ne tabax ba toj toj na fukki toj toj ak ñeent mu jàq ci xolam bi kamadin ci njàqare azimin bi aji màgg waaye wakkate moomu nëbbu njàqare ji nag waxut ko kenn maa ànd iwaano ànd ne tabaxam boobu kaana nekkoon na fi xaay tadafuqi tada tadaquqi ci doyab ak dëgër rek la ci na mu <clears throat> maanaam dañ koo xereñoon xereñe gu dëgër fala maas baabam xëyee wajala sa mu toog bi mel ci ci jotaayam wajala sa mu toog ak diwaanu mbooloom ma maa ànd ak moom fa jaamu dikk albariru ndaw la mooy ndaw lañ yónni woon min asaabi naarihim si ñooñ safara sa losma bu màgg ba alati bi nga xam ne yaabuduuna dañ ko jaamu min dunillaahi ci lu yàlla baasoo yónni nañ la woo ñeel ndaw di ko xibaar bi anna naara na safara utfiyaat fay nañ ko bi xëyri sababin waaw ci lu benn sabab rek laa wax de wala mu yaxfuru te sàggunu ñanaa ci xamu ko wala naqasa wàññeekuwut xata bu haa matama kisra dafa xëy toog ak mbooloom hmm. di leen nëbbu nag toj te ji nga xam ne tabax bi toj na ko hmm. fekk ñoom faaris amoon nañ safara su rëy suñ doon jaamu hmm. darsu bi ñëw dana laalaat safara soosu ah safara si am ay xamukat yu doy bu ko defee <clears throat> ni toogee rek ci la ab ndaw ñëw nekk ñooñ safara si ñoo ko yónni ne ko na wax Kisra ne ko safara si fay na te kenn sàgganut ci matt mi wàññeekuut waaye daal kenn mënu ko taal dafa xëy xëy rek fay ndeke yonent too juddu sallallahu alayhi wa sallam falammaa uxbira bañ ko xibaaree bi zaalika ci loolu zaara doole ku nekk ma doon njàqarem maa maa wu ànd ak la moom fii ma ngi ci min hamil iwaani si njàqareb tabax ba bañ ko waxee loolu rek njàqare yokku ànd ak tabax bi na ko ko lii مغنتيت فقال مودال ومم كسرى لاهل مجلسي نيال نيوم جتايم مو واخ نيوم جتاي بي نالن ما هذا لي موي لان موم فقال مو واخ لو نيل كون مو بيزان واتيكات با مو بيزان هو موم القادم واتيكات بلغتهم سين لانغ مو بيزان مو اتيكات بو ماك بي سين لانغ قال واخنا موم اتيكات بلو نيل كون نكو وانا من اصلا يالا دفر الله يالا ملك سنغورغا raaytu gis naa fi hasil laylati ci biir guddi ruyan ab gént ma raaytu gis naa ibadan ay gëlëm siyaaban yu mokkut yoo xam ni kenn mun leen a omat taxuudu mag leen a omat xeyran ay fasin raaban yu raab ah xat-xataan dagg nañ daj la ta dexu daj la wan tashara ñu tasaaroo fi bidaa daa ci réewi daj la mu bisan bi ne ko man gis naa gëlëm yu mokkut ay fasin raaban leen a omat mm. dugg daj la tasaaroo ah Kisra gën a tiitati fa qaala lahu mu daal di ko wax Kisra Kisra ne ko maa indaka ana lu nekk fa yow fii taawila ci firi googu yaa mu bi zaan yow àttekat bi loo ci xam <clears throat> qaala mu ne ko araawa gis naa loolu hadasan muy xew-xew yaa tii naa danañu ci côté arab <clears throat> yaakaar naa ne ñun ñooy dem ci arab yi rek waaw jëlee fa xew ko <clears throat> dégg nga loolu la wax de mm, parce que dafa gis gëlëm yu mokkut gëlëm yooyu ñi nga xam mat ay fasin rab dégg nga fasin rab bi mooy xibaar yu jógee ci arab yi ñoom ñooy gëlëm yu mokkut yu tëy yi ñoom ñooy jël xibaar yooyu saare ko ci réew yi rek de te mooy dikk ak yonent bi moo tax dafa ne raayatu gis naa ay beneen gëlëm si aban yu mokkut te xuudu ñu ngay xam mat ñoom gëlëm yooyu xeelen fas iraaban yu iraab mm, bañ ko laajee luy xew-xew ba mu ne man gis naa ne xew-xew la boo xam ne ñu dikkal bu jugee ci goxi arab yi rek de ah Kisra gën a jàqati fa beneen maa woo nga xamee ne moom kazaalika comme noonu la istissance rek war a daroon naa ci moom albaridu ndaw la maanaam mooy kañ yónni bi ànd maa boo xayra ne ko ndoxam boo xayratu saawa xadaxaa da ngis na boo xayratu saawa seen ndox ma ngis na fi tey fi tilka leere ci guddi bilaa sababin ci lu dul benn sabab ah mu gën a jàqati su ma war topp mu daanu alay ci mu albari du ndaw la benn waa di sama wane ko xuru sama wa faada bëbb na ndox faydan bëbb aziman bu màgg te daawut ko def xur woowu ndox maa ngi bëbb di dugg ci nit ñi bu xeyratu saawa ñiis gim ñiis waaw dégg nga te seeni barab la woon ñoom waa di sama daal di bëbb ndox moom loolu wane na ne mm. seen teraanga yëpp ak seen xërëm yi dana dana fay mm-hmm. waaye leer ak yonentu yàlla salaasam dana bëbb foofu yëpp vraiment waqaa ba mu tàbbee fi aw azal am li ci bile mbir mm. moom Kisra mënatul nëbbu nag mm-hmm. baasa ci la yónnee la Abdul Masih bun bu Qayla mm-hmm. gi ñaari tomb Abdul Abdul bun bu Qayla moom la yónnee wakaana nekkoon na bil xiira ma nga woon ci xiira baasa yónnee na ilay jëm ci moom Kisra Kisra. lii ati yow pour mu dikkal ko li yuxbira li yuxbira pour mu ko fi am rii ci mbiram maa taaw la ko dikkal mooy ne ci Abdul Masih fekk Abdul Masih mu ngi ci xeera ca côté Cham ne ko na ma dikkal dal di ma wax li xew falamaa jalasa ba mu toogee moom Abdul Masih bayna yaday ci kanam Kisra xaala lawu ci la wax Kisra ne ko maa turidi loo bëgg xaala mu wax la ñal ko fii naf si nekk sama bopp amru mbir azimun bu màgg قال له كسانكو إنما أريد أنك بغنا من الناس سنين من يخبرني كما يخبر بالأمر تنبير الذي بي خمنا في نفسي من سمو بوب من, من غير أن اعلم من غير أن اعلم لول مكوي قمل بذلك تي تلول كسرانكو نيك في من bëgguma كو xam ما كاي واخ موي muy firil déedéet dama bëgg koo xam ne moo may لي ne ba pare firil ma ko su ma yox biru ni mu mu xibaar ma masa yuraadu la leen na mu minu ci loolu mm-hmm. foofu naa ko jamono jooju asiqu laay gën laay mën a hóoru mm-hmm. bi xabar yi ci xibaaram bi mu wax Kisra nee na ki mu bëgg koo xam ne moo koy nettali mbir mi ba pare mm-hmm. wax ko li ci yàlla na mu su boobaa lay door a gëm xaala abdul masih wax la ñel ko ne laa yekoon du nekk elmu haza xam-xam xam lii ilaa inda xaalin lu mooy ci am nijaay lii ñel ma est-ce que nu mu nga dëkk bi sharqi saami si ñaari penku saam am na sama nijaay boo xam ne ma nga ci penkub saam saam fa la dëkk hmm. daal mën naa xam sa mbir mi <clears throat> xaala mu wax la woo ñel ko kisra kisra ne ko fasab demal ilay jëm ci moom wasalu laaj ko hmm. amma dégg nga <clears throat> ko ci nga xam ne danaa la yónni fii ci moom hmm. loola wa amma bansaka ci la Kisra yónni fii ci moom ma za yuraat ak lan lañ bëgg minu ci moom Kisra ne ko demal sa nijaay boobu nga laaj ko mu xibaar la mbir mi ba pare wax la ci yàlla bëgg fa qaama mu jug moom Abdul Masih min saati ci waxtu wa wa saafara mu tukki lay jëm ci Kisra wa kaa lay jëm ci waaw Satix mooy nijaayam boobu Satix la tudd wakaana nekk na bi sharqi saam ci penkab saam falammaa wasala ba mu yeggee léegi jëm ci moom wajadoo fekk na ko bi aaxiri zamanin ci mujj ak jamono mi moom lii ci dundam fekk na ma ngay sukuraat di waaji dee ah fa mu wax loo ñu ne ko jula saawo way mi ne kalam naa wax nañu moom falam yete kalam waxut li àndoo mu ngi ci sukuraatu dee mu ngi ci lëggëm dee ma ngay waaji dee moo tax wax nañu ak moom tontut abdul masih fa ansala mu daal di sadd ay bayt abdul masih abdul masih àndoo fa moom abdul masih daal di way nag ne asumun am yasmau xitriful yaman am baara qad lamma bi shawalanan asumun ndax dafa tëx am yasmau wala mu ngi dégg xitriful yaman sangab yaman am baada wala deena qad lamma wàcc na bii ci moom shawalanan ni lefam dee ndax dafa xalku lefam dee wàcc ci moom wala boog dafa tëx wala mu ngi dégg maanaam ndax waa ji di sa tiix dafa tëxam mu ngi déggam wala dafa dee yaa karimal xattati ayat man wa man ataaka cheikhul xayi min aali chanan yaa karimal xattati yow mi nga xam ne nii yaay ki tedd ci masala mi nga xam ne ayat lot loona man ka nga xam ne wa man ak ka nga xam ne maanaam yow mi nga xam ne masala mi lott loolu ñëpp yaa ko mën a leeral loolu mooy yaay ki tedd ci masala moom de ataaka dikkal na la cheikhul xayi sëriñu ab gàdd min ali canan bu jugee ci ñooñ canan wo moo yaayam min ali zibi bun xajan muy bokk ci ñooñ siibu bun xajan rasul xayril ajami yasri lil wasan ndawal rasul xayril ajami ndawal buurab ajam la mooy kisra kisra ko yónni yasri ma ngay reñaan lil wasani waaw ngir aajoom laa yarhabu ragalut alwaxda tëkku wala rey ba zamani du caagen jéng jamono ragalut tëkku ragalut jéng ak jamono waxut soxla ba nag waaye wax na ko ku ko yónni ak mooy kan ak li ko tax a ñëw an sadaa sadd fa boppam sa ba fa fataamu bi sa tiixam ay na ñaari bëtam yi su ma abdul masih أتى إلى ستيح على جمل مشيح وقد أوفى على الدريح من عبد المسيح أتى ديكنا إلى ستيح جمت ستيح على جمل تجلم مشين باجي غرغر غمنا داو وقد أوفى تفك سبنا مم ستيح على الدريح دي من يواجد بملم بانسك يوني لا عبد المسيح ملك بني ساسان بورب دوم ساسان لخمود النيران ينجي فيك سفرسا ورؤيا الموبيزاني أجنت موبيزان بوم يعتقد با آه، عبد المسيح كوي وانا أجنت كا أغلي خاو أكيد كوي يني تكين وقول كوكناك را أجزنا إبرن أي جلن سيابن يوم أكوت تقولون يعني أمت خيرن أي فصين رابن يوم راب قد قد أدقنا مم جلن جوجو دجلة تدخل دجلة وانتشر المتسارو في بلاد أشيرهم عبد المسيح منك يا عبد المسيح إذا كسر الببرية تلاوة جنگ القرآن وظهر مفن له الهلاوة برم حدوة ما برم دوك بات ما يونس على محمد صلى الله عليه وسلم دلان يرب دوك فم جم وفار مببو وادي السماء وقرو سماوة وغار منيس وادي بحيرة ساوة وقرو بحيرة ساوة سلو لب همي فليس نكر الشام شام لستين يلستين شام اندي شام يملك منام بلور همي yonentu boobu feeñ xamal ne Shatim moomutul dara ci Sham lépp yonentu boobu ko moom yamliku dana falu minu ci Faris mulukun ay buur yu góor wa malikaatun ak ay buur yu jigéen ala adadi ci liimu toj toj yooyu maanaam danañ am fukki buur ak ñeent suñ jeexee nag xamal ne loolu nguur googu nguurub lislaam la ñoom jeexal nañ ci wa huwa atin atin mu ne ko kullu maa lépp loo xam ne woo moom aatina aji dikk la aatina aji dikk la rek de luy ñëw daal dana ñëw kenn munu ci dara li war rek mooy nangu ndogal te jéem a dem bokk ci xéwal gu mag googu su ma faaree topp mu bëbb ba waxee loolu rek moom Abdul Masih moom Satih ba waxee wax yooyu ci la ruux gi daal di génn mu dee. فلما جاء بمدك عبد المسيح عبد المسيح إلى كسرى جمت كسرى وأخبروهم خباركم بما قالوا ترى وحنا ستي ستي فصدقوه مدقلكو وقالوا من هذا لي هو الذي مولين قمنا في نفسي مونا سمو بوبو لي دال مملا مملا آه، كارون ثم خفف مدال لي هيفل ألم من جاقر إلى نفسي بهم نا وحنا كو فكي بورن ينتدن فلو لولو تان جاقر جي وانيكو وقالوا من ذات ملك بو بفلو من ناس نيوني arbaatu ashara malikan fukki buur ak ñeent xasaaral mujj na nag umuran di ay mbir ab qadri wa miqdaari al azim